Eh, yo fodmata rek andume koy ke waɗooguma jeganum eka sa coow koy a may a coow le may a lool de parce que oh, oh, oh, a ley e o sun a ɗofax a calelum a xaƴa ya'um ah, a xaƴa mfinum ah, a ref no caaxaan mais nag ke da lele xana nu ga na kananta yaq a ah, ye ma koy bota cheikh parce que anda ye o xene war numo doye oxe roga jal nooma o ko xa a te leyame maqama fe a fudwa reti jalan ke roog mbene kene tax ndigal fe o mot ten garum koy moof ñaam kam garoogu mene ge la la la a ɗofa koñe anda sereer mute nana uwo ah, ka foga ye sabab jegu <laughs> waaw mute nana uwo ka foga ye sabab jegu to ka mofugo bo tamañ umay umay dal umay dal sikar la ilaha illa bo sikar la ilaha illa sikar la ilaha bo a qoñuma o yongole a yongole a fiya ngan koy bo timis a passer na rek um yodin yodin yaga bitik nene njëkk bi nag. baax ay mbot nu wax ma yow. ay ado ado ma de waaw ba tax mi ñu xat xay en dokidayo a koy um fudin commencé waxtaan fa den waxtaan fa den bata lay xe ga oxe kata leya o ɗofee ɗo lay keke ne ɗof lay keke ne waaw ndeysaan i ndef teen ndef teen bata jeg wa andoona yee koy ndeysaan a ngarayo a ino ka i mbug teen cooxa den den to waajur ken koy aladine koy ken ma anu ngadin madus tumina jamo do fokene mom do to krenta do nora non ndesan meke ndeta ndeta ndeta ndeta ndeta ndeta jole may bo ndesan ambana fogum ke anuna ten inoru sin anja bid mene ha ah? satisfait mbode nene kay mm-hmm. non satisfait mbode instant la nul ne prophète ce soir mm-hmm. ga pro xoyit me genona ka jafeñ parce que kanga a faakof e mene reɗ'u faak a karaté og i aw ndax a jega tang um soɓ mene sal karaté moɓ yoq mi yegu den den um xas rek leyede kam lalta roog fo damano bo waago fadan kino xana roog anda te joɓan yoq we waaw um leyne koy sidna alim fo faak fo fe ko refe leng um leyne koy kin ka suptuwa roog na waago supit maqama feñatook mo faak fo we xaye refe leŋ i xu ando naye xaye pare a mi koy naro gom karate ata <laughs> karate waaw simna sang na sim'e xan nana ye im no Abdoulaye Aminata rek nu nana mais o we leyna ne sim'e nene xawine topitum déedéet si maxol déedéet askan déedéet xalal mais ku topp nee na xam-xam du di xes na makka a geenoox um ɓek ta maka a ngar yo roog lula xam ta lay ne roog xalu nang ta layoye la ilaha illallah ta lay e o eh, moom roog andona ye ndeet no famille ne mi ne pauvre maka ta fafudnama tigum ah? yaga Qurayshi daanaka mooy la ah jaamana nga waayo anga yo xone ka ñak ware waago refo o tuleer ñowa makka a soɓa rooga tana waaw tane fati tan una i retna bata min tani tin Mouhamadou Moustapha oxe tanena bata min tani tin Al Amin oxe xool wena bo wa makka ka ngek nogun xalal den ngir xool win to ku gek na nona nande famille fe andoona yee o geekanangaam amaana sax bo gara waaga no moƴ jikoox o garanga um sutno xaalis rek mais o geeknangaan mi ta teg tan bo nu soxla nong maaga naaga yolit kana caq mo ten naaga bo ta layna alamin xo wóor na mais te na bo ma xaama Muhammadu Rasulullah a futoox na den koy e kaaga in ɓisu o coow le dena koy bo ta lay kii nag mooy Muhammadu Rasulullah mooy ki nga xamante ne mooy ndaw suñu borom da lay koy kaaga waagee ref mais roog kete na ndega roog a lay axone yo o xaaga ref ka faw waaw o kiin waaga ten tig ten taxu benn jour ka moof mene o koor ole nga gar a leyaame wo ndiko jom andam quoi wo a pa ken ndef mene imam ken ndef mene saate fe wiin we ga i ndaleta de a ndoka suɓwa ken wo moom sa su refna wiin we a ndoka suɓwa a sarta ke fo otoxe wene ta ngara ma xaro ndi xa cooxa wiin we lene waaw so waay tigi nak ka jeg ka andoona yee ka mumeen o jegangaan xaƴin ga a mete ñaamta a yertama ta ƴufit ndeg o xutaluna maga ƴufta ga wiin we wiin we roga ŋañtuwayo ga amu roga refna a maga um leyne ka imam ratib ak imam lay ndefe leng Imam ratib ka ref ka ando na na na na ya, ah, me ka ɗeta yo xene janga alquran a ngolwanoyo a yiwa a ɗetanoyo a leyne nange adwana in jul a o kiina o tewa ñootanga man te leyanga den ngoyo iman tani o ndax nga ah, a refanga tolax and naye ka waro fasel te ley ngoyo imam te xudbo a refanga xa xon na te ley ngoyo imam jul in mene ma xamata di kaga imam jegun mais awe maag koy a dayu nene koy refanga koy fatna roog rek mba anda roog moom a ah? nene kaga koy imamu ratib jegiran kaga imamu lay jegun ten taxu imamu lay nak

ana waga gin na hawinu ah no kaga waga ref sekati ke kay fadim no kene andim kene ja im kene awaga ref mais kene waga wagin mo and kene waga andel waga jegel waga fadel de de ali flay kran wala kran mais we andina mina rok ngay e toka ela ken ndok e mene de kam lankay asuto ala rok ni ne e wi na de do a ela ken de do tok lank ne mosuma so def men mais kambat no ndigil ka jeg u xam-xam fa andoona ten leeran u den ne roog a refna meen ten soom dara refe meen roog roog soom ref roog roog soom mais roog fene koy nama reftu kene koy war leere kidoxe o surno war leeran o taalibe le bo ta roog fene ka war o andel waaw ndiki o koor wo koy o ga'a roog ole no goy laya koy e ko ga' taxa roog ɗo ah, ɗum a gaɗtino maare fo fo a paayo ndinam ɗum leyne a waaw mi tarafna donc ka gaye demi angidal nega eran par ce que a leera he ngidal nega e eh, te leyame xa um leyne xaye a ñalanga ka jeg ka ga'ta de te leer fe njeƴne muy lumière naturel fe waxtu fene fadanga o buga ga ko roka na ndokale naɓ na mais o tananga lumière artificiel fe rek manam o ga a jeg kon leer jàmbur te ne ko ata um lene kay ga leer fe ñeñe werango leerana roog leer fene andoona yee ten ref lumière artificielle werango leerana roog mais roog ka jeg koy leer fa andoona yee manam tena coogu wiin we wiin rooga leer fa koy ten tuba la lumière divine leer fa koy teno surnoxa jegu bo ten na taxa ta jeg conviction ne que ref ne rooga refitna meen parce que roog manquer no dara tinta horta nga no mayon sudur de dara bin sirin tuba sirin tuba la dinne mi kayo o ga en rog jom anda xamé ga rog jom anda ndax fa kullu man raasi wala ahad fi ay shay'in fa huwa murtan jihad ku de to na bota fak ta ale ga roto rog sirin tuba la ko murtan rek ko ko su tok dinne rek mais rog momo ka fen fa ka fen fa mais nak ñu ne way nga anayo mais kada nga anderu kada nga anderu yo okina ka deta nanga ɗeeta a ɗeet fa o ga refe leŋ waaw o kiin koy a waaga ga kata anderna de mais andam kaga ero waage ref <laughs> ku andoona rek kaaga wara teg ta angidum hmm, i eh, kon nak misan in way njeg wana moof ale a miña lool mais nak ke andoona yee xaye a ten ten ina rek a qanan rek o enanda ko e o sirno hen toy tan cheikh moussa sisé tan mina dalla jamme daaro i e, rapport lene te ne o gumene ndiki a ndew taliɓe anda rapport o gar owa tourna a clip le jour fe mene waaw e o xaga jamme taliɓe ba o mum ten moox um, mamor fodaji om koy lulogun yaga Serigne Touba xoya njarem ten lulogun ad ya maga ay temps yaga Saloum ka may suum a fiya nga xande suum bata may te roxon tena ne tanga bisana a njarem yeta retna koy bo Cheikh Moussa a maak te bino lettre a cooxin tena o tanga le ndike rek kete bind nen ka ley ne koy Moussa fene ke fiyona nami ah kam bugo fiyan no ten ndax wo xam ma koy Serigne Touba safante tu fo Cheikh Moussa Cissé a fina ten kete fina a ley ne numtuy Cheikh Moussa faga xaye nete antenne sax baam antaan na kena ley leen ndaxar ne fo kaane fe ndaxar ne rim kaane fe mais o ñimanga kaane fe ande kaane fe safo sap waaw Cheikh warul coow le koy dena leya njambe daarum waaw ten xeswo ala dine yàlla laa di wone yàlla laa di wone dañ waaw Cheikh Moussa yàlla ngay wone mu waaw lu dul yàlla neen la yàlla fi nekk di waaw mu ne ku wonewul yàlla wane saytaane pourtant nga instant lay am ku andonaye angi dafa xoola o ga yaalof ku ten xañ xool o ga yaalof ke rok na diggante in fa na ina refu kiray ke na ina refu de o ga anga i mbug re o ga anga i mbañra o ga anga i ngiro a ŋaayo a kiray ke na ina refu yo ga'a o kiino xe manam a refa nga ndigilo koy a o kiino kiin o kene fo ɗendoor fo to o ɗendooranga o faamnanga fo ten xa roga ye xoxof soma lala kono in tanga bo i manam a jega ka roɗig na in o todgalalel no koy manam teno surno xe boganang bata xool xac bo o faam ranga fo o kendof a xooxof yene ka toro xooxo kendof ka yene o rono xooxof ndax kene taxa kene ref diine ten taxu le diine islam c'est la paix jamo mais diine islam a leyanga diine islam i ñoowa to ngen no xiiro ah, mbañra nguudra mbiral ponu njalra jang alquran bo mokin hmm. jallo kin to def jang alquran bo mokin hmm. fiaten ponu hmm. ah lay jang alquran wo an rokki anjurin alquran jamono jamono ni banu te ku ku jege na yif xalal yal barko def ka ko juriñ ñor tel nga juriñ ko xof to ken rek men de jamono jamono tigé askan refenu ci mongol a ɗanga kaga oto yonanti rokke fidel oɓe yonanti rokke fidel kon tike xam-xam o talaabul hilm fardatul ala kulli muslimin wa muslimat saku xam-xam o war a julit fa ngoor fa julit fa ndaw mais ban xam-xam o xam-xam fe andoona yee ten na leera nang o yaalof kino kiin ke jegoona andaano o xojeg na in koy a ah, fat i in mbok a ah, kon assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mete inora fag ke tempo ke tey monsieur le maire Macodou Sène moo ñëw siyaar si sëñ bi mag ñëw bokk ak moom bés bu màgg bi nga xamante ne sëñ bi woote na ko tey mais ñëw tey bi dafa am benn mandarga bu ndaw boo xamante ne rek mën nañ ko ndawal rek mais moom bu mag la boo xamante ne rek mën nañ ko seede ci sëriñ bi ndaxte dañoo jege woon ci ay élection yu affaire mbirum jamono sëñ Makodou Sène maire bi dañ ko fa taboon mu ñëw am kóolute am foo xamante ne teg na ko sëriñ bi am foo xamante ne sëriñ bi féete na ko mu ñëw talal ko ay loxo ak ay njabootam àndoon fekk soxna si ak euh, jaboot ji yépp ñëw tàllal loxo sëriñ bi ma bëgg a xamal taalibe yi mbir a fi mbir a ngi fi te mbir mu fi jógee ak mbir fi mbir mi mu fi jëlee moo tax encore mu ñu faluwaat te sëriñ bi waxoon na ko keroog te yoon bi fi jaar te ñu bëri la doon xëccool fii donc naa ngi dënku ba ko taalibe yi ngeen gën cee jàpp gën gam gëm xam mbir ma ngi fi mbir momu nak suñu borom dañu ko jaglal baxé ko ba mu am ci suñu commune bi muy commune ñaaxa bi nga xamantene ne Makodou bi moko fi jité donc fofu lañ leen di dénku moo bi élection yi passé makodu sen maire bi jàpp fan lay wara mëna sante bi moy ci bëssam bu mag bi nga xamantene ne momal bopam moo nga alors mom la bokke ak mbir Sénégal yëpp parce fu nek la talibé jogé ñew fi donc mom mo waral tay tankam bi fi ñew vraiment siar si siar si mbokku talibé di ñaan it aussi suñu borom may gudd fan bu wër sëriñ bi may ko gudd fan bu wër ndax am na ñëriñ ci commune bi am na te ñaan yi muy ñaan yëpp mom mu ngi koy gunge ci mandam loolu nak aussi mu ngi talalat serigne bi loxo talalat moko talibé yépp yëpp ne ñu ñaanal ko mako du sen ba fi nga xamante ne moom la bëgg encore encore wat commune bi suñu borom dimbala ko yombalal ko ba lépp lu mu mewet mu gëna yomb ñëw ci commune bi serigne bi nak ñu ngi sant bu baax di gërëm soxna si ndaxte mako du dañoo bok ci administration yi ñuy doxal te lycée Niakhar buñ ko waxee ci xale yi muy tàggat donc moom jóge na ci lycée boo xamante ne yàlla moo ko may mu dégg doo bokk ci nguur gi ci ñuy décider ci nguur gi loolu it aussi ci biir ñaan bi rek ñu ngi lay talalaat loxo nga ñaanal ko mu yëkkatu ko mën nga ko na yëkkatu ko waaye yëkkatu Ñaaxar rek lay doon lii sëñ bi Makodou du mole siyaar enveloppe bi di ci jégalu bu baax ci kàddu gi rek jërëjëf toppatoo firndewu na euh, waaye bana dama bëgg balaa ñuy egg ci ñaan boobu rek euh, ma jottali la ay kaddu yu lot yoo xamante ni xëj na moom moo ñu fi dajale woon euh, ndax dañu ànd ak suñu kilifa di Makodou Sène nga xam ne moom mooy meeru Ñaaxar te lépp luy yëngu ci biir Ñaaxar nekk njabootam am na yéene teg fa tànkam euh, rawatina nag digganteem ak sëñ Aliou mii euh, dund nañ ñu bëri seex nañ ñu bëri euh, xëy na mën nañ ko tënkee noonu rek waaye di la xamal ne sa ndongo lii day vraiment ñun day bat nañu sëriñ ñun xëy na ndongo la ci yow ndax ki la kooku munoo lu mooy nekk taalibeem waaye ñun dey ñun waa ñaaxal mot nañu sëriñ kël te comme yaay kilifaam toog euh, baaxoon nañu seedeel la ko lool euh, mu ngi ci yaru ndaw ñi mu ci juban ci mag ñi itamit euh, yow mi kilifaam boo jógee ndagaaru ñëw ba fii tombe fi ak kilifa gi nga xamante ni xëy na mooy kilifa dëkk bi ne mooy meeru dëkk bi ah ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy liggéey ak moom ah, baax na <coughs> ñu seedal leen li nga xamante ni moom la fi sëñ Aliou nekk jaadu na ñu xamale li nga xamante ni moom la fi sëñ Aliou nekkee ah. sëñ Aliou ah, ñu lay bi may ñëw léegi sama sama xel bi ci moom yàlla xam ne parce que bi may ñëw léegi sama sama xel bi ci moom maanaam mm, mm, mm, maanaam waxtu wi la woon waaw amaana ma fekk waxtu bi la woon waaw kon nag eh, mooy suñu kilifa li ma doon wax sànq ah, kii moo ko def ci man ñu di dox diggante sëriñ ak taalibe loolu noonu ci kii laa ko ame mm-hmm. moo tax bu toogee man amatu sax amatu sax kàddu ndax jant bu feeñee looy niitati amatul njëriñ ngay nit li ba jant bi leeral rek <laughs> waaw kon sang waaw kàddu gaa ngi noonu waaw eh, ñaanal ñëpp njaboot gaa ngi nii eh, kilifa gaa ngi di monsieur le maire ak njabootam ñoom it eh, jàmbaar la dénk nañ ko dénk nañ ko maire kon eh, moom mu ngi liggéey liggéey bu rafet. Hmm. Eh, ñëw nañ si ci jamono élection yi. waaw hmm. borom dogal saan ci mbaax mbaax rek ma tëdd suñu borom won ma kilifa yi xëccoo mbir mi yëpp. Hmm. mu demee yëpp ah, am ma am chance nag moom gis na ko ñëw doom la fii kaay mu ñëw de ma ne ko ah man de jaw moom waa ji war na ma ne yow yaay yaay jël ma yàlla woon na ko loolu la la yàlla woon dem naa bu wax ko bay ne taali bi sax mu ne ma waaj sax doo jàppale sama sama waaj ah mu ne ma ne doo kii loolu jàppale sama waaj ma ne ko ah man man la yàlla la moon man nag man sawaay man du ma wax ngir bànneexu bakkan mu ñëw wax eh, waxam ne ma ñaanal ah mm-hmm. dogal loolu noonu suñu borom matale ko mm-hmm. lépp yow la di sant dañ ne tàng loxo ci kalambej kon tey lu ma yëg ci yàlla lu ma mën ci yàlla lu ma am ci yàlla moom la te Cheikh Rafal dafa am benn kàddu gu mu doon wax te wax ne Sëriñ Tuubaa jox naa ko sama lépp ba mu des sama ngor mu ndax man bu ma mu ne bu ma joxee sama ngor kon desatu dootuma dese dara dama man damaa bëgg a gore am sama diggante si dama bëgg a ba keroog sama jëm ak ru taxali kon ngor googu it lañu ñu ànd ak tëdd gi ndax mënuñ ko fay ki la ne yàllaa ngi nii a ah, kooku noonu da ko mën a fay mënoo ko fay dañ koy delloo njukkal rek saa su ne rek waxtu bu ne dañ koy delloo njukkal xam ne kenn gënu ko di ko dagaanal suñu borom mu yàggal ko fi te ay cëram ndax liggéey bi nga xamante ne mom nga def ci ñaaxar sa liggéey mo yaatu rek jote nga fep fiñ kon nak sang mbir ma ngo kaddu yi bu bu gisa ko waaw bëggatuma sax mo bari bo toogee dal dama bëgg nga kaddu <laughs> ñaanal ñepp dal waaw macha allah Diouf da ngeen jëf ah, kaddu pare waaw waaw baax na hmm. kon def ñaan hmm. loolu la yàlla dogal. Hmm. xam naa yéen tamit amaana. Euh, bés bi am yeneen mbir loolu mën a téye bu bari. li am solo rek mooy euh, <coughs> teewaay bi. teewaay bi rek mu am solo. boo yabale woon sax day doy ndax nit ku nekk kamu yabal. mak makkaam lay doxee. moo tax fi mu toll nii buñ la gisee. ñu ngi gis l'ensemble du gouvernement et le ministre et le président l'ensemble du gouvernement et le président de la République gis ndax yaa leen représenté ñu ma kii représenté hmm? kon jarul ñuy dem ci bu ñu ñëw fii wala ñu soxla jarul ñuy dem ci Macky wala ñuy dem seet si wala ñuy yem mhm. yaa ko yor nag tabarakallah noonu la noonu rek la mbir mi tëddee hmm. ñu ngi sant yàlla gërëm yàlla sa xarit bi damaa egsi mu njëkkanteel man am lu mu ma dee waaye waaye dégg nañ fa bu may dugg si léegi maanaam ah man na ñaaxaar bi fi ñëw amul tali amul làmp bi fi amul tali amul làmp ci na maan ah man li ma fi ñëw yëpp tali laa fekk de ma ne ko yow hmm. a man moo passé ñu ëpp na ñaar fukki at hmm. alhamdulilah <laughs> kon nag loolu la tëddee moom mii dama koy bàyyi ak ndax ñaa xam ne noonu la la Macky représenté fii xam ne mbiru askan bi yow la yow yaa koy dox te sax amaana am na si yoo xam ne da ko daan du compte moom noonu la mel lan na ci ñun def nañ ci moom di na ci def ci moom nekkatuñu ñaar benn la ñu li des nag mooy ngor gi waaye soo loo gisee rek gis ngeen ma gis ngeen sëñ Touba gis ngeen Cheikh Tidiane gis ngeen li Laay gis ngeen li ñëpp benn lañ yàlla xam na boo ko doon guddi gis li Maamu Laay ñu wër ne moom ni nga gis soo xamee boo tëddul guddi gis Baye Niass bëgg dem Kaolack ko déggoo yemal fii tuuti dara bàyyi la fii fu mu fi yàlla def bu demee ci maire ancien maire bi lu mu fay def kii ñu ne yàlla lañ dogal fii nii bu ñu fi nekkee maire jamono bi ñu toll nii moom la fi teg te du nekk ancien maire sëriñ amul ancien sëriñ bi amul jamais waaw tabaarakallaahu loolu yàlla ma def ci moom lu mu gën a yàgg lu fi ñëw fekk ma fi tali lu mu gën a yàgg day gën a neex ne la wóor na mu gën a yàgg lu mu fi gën a yàgg fii dëkk bi day gën a jóg day a dem day gën a kawe xamul tax baat bii moo tax baat bii màkka ay xeer la woon dina la wax ne benn baat bi dina jéggi taafu màkka yi day eh, gis ko jamaak orin fa tuubaa gi baat bi ci waa woon jàng bëri ne laa jàng baat bi baat bii naar yi sax bu masaan ñëw si benn dëkk boo demee si bitig yi dañu am bitig bu ndaw waaye fa fekk laay laay laay bu yàggee bitig ba di màgg baat bi rek moom moom la ñu àndee kon defee baat bi moo di yàlla yàlla moomu nag lañu ñu fas yéene moom lu ñu ko xamal tudd tudd ko ba mu tudd ko ñu xamal ko ko moom xam ko kon na sa xel daal dina dina ànd ak yow. Mhm. dina la gunge. na sa xel daal mhm. ñaan dafa rafet rek waaye yaay jëfal sa bopp. Mhm. nit mooy ñaanal boppam. ñun ñëpp la ñuy ñaanal lu ñu bàyyi kenn ndax ñoo ñaanal kii bàyyi kii waaye nag ñaan gi mooy li nga def. jóg ñëw fekk si ko. jox ko li ko fi ko yàlla teg doon tey kii woo ko mais nga nga nga nga sa mën nga def ko loolu mooy ñaan bi su boobaa su duñ la ñaan dañ lay ñaagal ñàkk mooy ci tubb jox la. Mhm. loolu dara. loolu mooy mhm. loolu mooy li yàlla yàlla def waaw mooy li yàlla dogal kon nag fa tabaarakàlla dañ lay bàyyi ak moom ni mu la doyee ni mu la doyee ba nga ne mën nañu sëriñ. Mhm. loolu loolu moo am. duñ de duñ jëmm kon nag. loolu leen soxla rek seen xel la daal sax boo fi ñëwuloon sax dëkk bi jëm boo fi ñëwuloon sax dëkk bi day jëm kalam yàlla xam na ko dina koy seetal ci màggu yàlla rawatina nag ngeen ànd bu féete leen ci ngeen taxaw seen taxawaay kon nag ah yàlla defal na wér yàlla defal na wér lépp luy yàqu ak yàqu la yàlla lay jiwal yoon lu guddeeg bëccëg nga yàgg fi lool